tur wuyu na borom xéewal yaag yu baaxee ñoo nga ca boutique Serigne Habib Sy suur yéen commerçant argentine yi seen coono jënd bagage ci été bi jeex na boutique Serigne si Sy suur jëlee na ko fi boutique Serigne si mën suur ma nga ca onse ba Reve de Via 25 65 en face Western Union bi geran ba di Mamadou Lamine fay numéro téléphone am 11 40 98 93 65 yéen ñi nekk ci géej gi jaratul ngeen di dem ci capital ba ngir am bagage yu baax boutique Serigne Habib Sy Mansour teggil na leen coono boobu Mamadou Lamine am nay ndaw yu nekk ci géej gi lépp lu ngeen soxla ci bagage yi été am nañu ko boo demee ca Salta capital góor a moo fa nekk mi ngi ci Case Mendoza 385 numéro téléphone am 11 28 18 07 52 boo demee Santa Teresita Mbaye Fall moo fa nekk mi ngi Case et 32 529 numéro téléphone am 11 26 55 06 Mar del Plata daw dafay moo fa nekk Rivadavia 21 19 en face Colonne téléphone am 22 35 01 07 98 nga dem San Bernardo mbay Ndiaye nga fay fekk mi ngi nekk ci Kaase Coosa 28 75 téléphone 11 65 33 91 30 La Croutas kii di Ibrahima fay moo ñu fa nekkal téléphone am 29 20 70 48 57 nga dem Visa Xesel Serigne Mourtada Touré moo ñu fa nekkal numéro téléphone am 11 57 32 06 44 bu dee ca Lastonina Moussa Faye moo ñu fa nekkal KC1 numéro Gloria 15 65 téléphone 11 28 06 20 93 kon nag coono jeex na été bi affaire bi boutique Serigne si mën Mansour la bu ngeen fa duggee du ngeen ko rëccu